jërë ngeen jëf bës bi Thomas Sankara am ca Burkina Faso commissaire Sankara am na ko ci réew mi moom commissaire bu police bu Parcelles Assainies aw mi ngi ñuy jaaba ci yéenekaay bari ñu xëyandool yëral xët mu njëkk Sud Quotidien mi ñu wax ne coow li ma nga xewee ca pharmacie Fadilou Mbacké ba ca Padoua garab gu ñu naan Tetavax la fa demoon doon wuti loolee mu indi coow li ba ñu caxat-caxatee pharmacie ba jàpp docteur Cheikhouna Gaye mi doon jàppante bi wër réseaux sociaux yi coow li ne kuru ci dëkk bi li kilifay police bi njëkk def mooy dañoo jëlee commissaire bi ca police ba ba noppi xamle yeneen misir disciplinaire yu ca war a topp l'observateur nañu lu jëm ci mbirum commissaire Sangaré ak docteur Cheikhouna Gaye wax ji bari na te wuute ndax am na ñu jege commissaire bi ñu leen xamal ne li ñu wane ci vidéo bi demewul noonee dañoo jël vidéo bi dagg ca la leen neex monté ko na mu leen neexee waaye wane wuñu lépp ne da koy génnee ci pharmacie bi ci la ko commissaire bi ne li nga def di kay nañu mel ne ne nag ne moom commissaire bi moo koy bëgg a réccu ndax déchargé nañu ko bépp fonction bu mu yoroon ba noppi suspendre ko à titre provisoire direction générale bu police it nañu ordre des pharmaciens jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér géram ci réew mi di Abdoulaye Diouf Sarr enquête dina mi ngi ñuy xamal bi mbir xewee dem na ca pharmacie ba ba ñaawlu la fa xew kuréel gi ëmb jeune pharmacien yi ci réew mi journal bi nañu wax nañu ne dinañu réew mi bi libération waa section recherche ñoo feeñal ak lii xóor mu di scandale gu rëy gu am ca direction des affaires civiles et nationalité sénégalaise yi doon jaay benn nationalité bu ci nekk benn million la ko doon jaay yéenekaay bi nañu am na ay syrien ak ñu cosaanoo ca Yémen yu ñu ci jot a jaay ba ñoo ngaa ki seeni nationalité tëye décret bu président de la république lañ doon trafiqué toppandoo signature bu directeur bi defar ay nationalité encaissé seeni million bu ñu naan Ali la ci njëkk ci njëkk a ki ko ko doon defal mu di benn agent de l'état boo xam ni bidil bi kalaatee dafa daw ba fi mu nekk nii ñoo ngi koy wër porub ndakaaru drogue bi ma ngi fay bëgg a bëri ay tànk le quotidien nañu port autonome de Dakar ci overdose la jëm ne bu weesoo drogue bu bari ba ñu fa jàppoon fan yi la ñu génn keroog àllarba ci suba douane Sénégal jàppaat na fa ñeenti kilo cocaïne ca mool 1 place Soweto ku ko wax xel dem ci assemblée nationale le quotidien xëy nañu xibaar ne pencum ndaw réew mi mu di assemblée nationale fas nañu yéene modifier règlement intérieur ba ci digg weeru sàttumbar ci la ñu woote extraordinaire jëmee ko ci rapport bi commission d'enquête parlementaire bi doon def ci coowal 94 milliards yi danañu ci jaaree te def ay joyandi ci règlement intérieur bu assemblée nationale kay bi nañu amna ñu leen xamal né règlement intérieur bu assemblée nationale bobé ñu bëgg modifier ak sanction disciplinaire ya ñu cay wax li leen yee ci aduna ba tax ñu fas ko yene def Ousmane Sonko ci la ci noné ci lay démé ci soleil national journal bi mi ngi ñuy xamal né gaynde Sénégal yu jigéen ci walu basket bi qualifié nañu ci demi-finale afro basket bi Mozambique la ñu cee dajal Angola la ñu gagné démb ci quart de finale yi 88 ci 54 page 4 bu journal l'Observateur waxi kaña moo fa nekk ubbil yéenekaay bi ab taxaw seetlu la journal bi def ci Ndakaaru ak ni mu bare ay kaña jamono ji Rasoul Ba di commandant brigade régionale de l'hygiène bu Ndakaaru diñu wax ci l'Observateur ne li tax kaña yi bari léegi ci dëkk bi moo di xeex bi ñu doon xeex kaña yi ay ata ngi dañu ko ginnaawal